نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وآله وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة يعيش المسلمون اليوم أزمة فكرية واجتماعية خطيرة بسبب تعارض تعاليم دينهم تعاليم دينهم مع التيار الفكري الغربي حول كثير من المبادئ والأسس في حين أن العالم اليوم أصبح وحدة واحدة وقرية واحدة بفعل التكنولوجيا والعولمة مما يلزم علينا ضرورة التواصل مع المجتمعات الأخرى وبالتالي تأثير ثقافاتهم علينا عن طريق التلفزيون والمحطات الفضائية والإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعية التواصل الاجتماعي التي تبث أفلاماً تعلم فيما تعلم حقوق الوالدين باسم التحور تحرر والتنور وعلى سبيل المثال فالطفل في بعض المدارس الغربية أول ما يعلم فيها هو رقم الشرطة ليتصل بها إذا أجبره الوالد على أمر لا يريده ومن جانب آخر هناك قوانين واتفاقيات تفرض من قبل جمعيات ومحافل دولية tusaadimu maa shariatina wa thaqafatinaha wa minha maa yuaddi ila tamarrud ala sultaani al abi wa sultaani al usra fallahu subhanahu wa taala bayyana fi alayati alkarima qawaida altacaamul maa alwalidayn wa qaala jalla min qaa'il wa qadaa rabbuka an laa tacbuduu illa iyyaahu wa bilwaalidayni ixsaana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waxfid lahuma janaxa aldulli min alraxma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira فالله سبحانه وتعالى قرن هنا بين عبادته وبين البر بالوالدين والبر بالوالدين yaani altaatu lahuma fi kulli amrin min umuri dunia bi ma la yataaradu maa taatillah yaqulu subhanahu wa wassayna al insana bi walidayhi xusna wa wassayna al insana bi walidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaaluhu fi aamayn an ushkur li wa liwalidayka ilaya almasir wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma lay ala an tushrika ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa saaxibhuma fi dunya maarufa bokk jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla noo ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaa di ko ñaanal moog waa këram di ñaanal ay saxaabaam di ñaanal ñu baax ñépp ñi ñu jiitu woon waaye ak képp koo xam ne yaa ngi xeeñtu seen mboor bokk yi tomb bi ñu bëgg waxtaane tey mooy lu jëm ci wàllu topp ay waajur fonk ay ñaari waajur déggal ñaari waajur waaye nag dañ koy waxtaane ci jamono boo xam ne jullit ñu baree bari wala jullit ñépp dafa am jafe-jafe bu ñuy dund jafe-jafe bi mooy li leen seen diine wax day xaw a safaanoo léeg-léeg ak li xew ci jamono te àdduna nag dem ba nga xam ne léegi benn dëkk la kenn mënta beru fenn ne lii rek lay dund ndax li ko waral mooy benn dëkk la boo xam ne li ñuy tudde mondialisation ak technologie bi tax na ba dëkk yépp di benn loolu nag moo indi jullit yi mënuñoo ñàkk a yeneen société yi waaye jaxasoo googu it su amee da ngay jël waaye da nga joxe waaye da nga jël nag loolu nag mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom la jullit ñuy dund tey ni ñuy jëlee ci ñeneen ñi te munta ñàkk ndax jaxasoo gi naka lañuy fexe ba mu dëppook seen diine loolu mooy jafe-jafe bi ñuy dund dëgg-dëgg te mënuñoo tëj seen bopp nag ci àdduna bi ndax ci lañ bokk te àdduna bi sax moo mën moo moo mayeetul kenn di tëj sa bopp moo tax lu mel ni internet bi lu mel ni réseaux sociaux yi lu mel ni télévision yi ak yu demee noonu tax na ba fu sori woon jege na moo tax ku am sa message booy joxe ci nga koy jaarale di ci jaarale di ci jàngale lu wuute lool ak léeg-léeg sunu culture ak sunu diine mu mel ni loolu tax na ba te nag dañ koy def ci tournée dañoo bëgg nit ñi am liberté am sañ-sañ ci seen bopp loolu nag ay jafe-jafe la yoo xam ne lu jullit bii dund ci jamono bii ñu toll la suñ ci bëggoon a joxe misaal dañuy wax ne soo demee ci yenn réew yi gone gi bu dundee duggee école rek liñ koy jëkk jàngal mooy wan ko ne ko mooy jox ko numéro police ne ko soo delloo ca kër ga su la sa ñaari waajur bëggee def lu la neexul fii ngay woote te léeg-léeg koo boo ca woote bu ñooñu ñëwee lañu ñu njëkk a def mooy yeew sa ñaari waajur ci sa kanam kon loolu mooy wane ne ku ne xam na ne loolu wute na lool ak njàngalem lislaam waaye lii xew la bokk na ci itam lu ñuy tuddee ay convention internationale ak i traité yoo xam ne suñuy réew dañ koy xaatim ndax ci àdduna bi lañ bokk te léeg-léeg la ci ëpp day safaanoo ak sunu diine mu mel ni loolu ay jafe-jafe la yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la te bokk na ca loo xam ne su sottee kilifa dootu am kilifteef ci këram famille dootu am kilifteef ci nit ku ne da ngay dem ak sa bopp te nag sunu boroom lim nu jàngal bokkut ak loolu ci ni war a doxale sunu digg ak sunu sunu ñaari waajur am na benn aaya boo xam ne day wane ni nga xam ne noonu lañu war a jëflante ak ñaari waajur mu wax ne ginnaaw bi mu waxee ne yàlla moo dogal ne ab ku mu bind mi def yi di doomu aadama yi ak jinne yi daf leen bind pour ñu jaamu ko waaye mu teg ca nag ne moom noonu mu dogale ñu jaamu ko ni la dogalee ku nekk war a góorgóorlu ci sa diggante ak sa ñaari waajur ci rafetal loolu nag mu teg ca ne ñu demee nag rawatina nag suñu demee bay mag su boobaa sooy wax ak ñoom buleen leen jànni bu leen gëdd euh, te itam nanga nga fexe bay nooyal say wax bu baax sa digg ak ñoom wax ju yiw ju teey ju dal looy jëflanteek ñoom na ko yërmande lal looy jëflanteek na ko ñoom na ko yërmande lal suñuy dund ak suñ la wonee ginnaaw itam bu leen fàttee ci ñaan del fàttaliku ci moo tax mu boole ci biir ñaan gi ne na nga leen di ñaanal yërmande ni nga xamee ne ba nga mënul dara ñoom ñoo doon taxaw sàmm la ba nga toll nii nga toll tey mbokk yi suñu gisee sunu borom di lëkkale diggante jaamu ko ak wormaal ñaari waajur ñu xam ne wormaal ñaari waajur lu réeréy la ci suñu borom wormaal ñaari waajur nag mooy ñu déglu leen topp leen ci lépp loo xam ne mbiri àdduna la mbiri àdduna la te loola juyowut ak diine loolu moo tax suñu borom ne bëgg naa ngeen fonk ma di ma sant ndax fi ma jaar ak yéen jaar fa ak seen waajur bëgg naa yéen itam ngeen di may ngeen di sant seeni waajur waaye lu mën a xew nag maa leen bind bind seeni waajur suñ leen bëggee dugal ci loo xam ne dafa wuuteeg li nga xam ne moom laa rëdd nag su boobaa ëpp naa def bu leen ci dugg waaye bu mu tax nag ngeen bañ a ñàkk rafetal seen diggante ñoom bokk yi am na jikko yu rafet yoo xam ne ku bëgg a rafetal sa diggante sa ñaari waajur Seydina Abu Hurayra daf koo jàngale wax nañ ne dafa doon yi bi muy dem nag mu gis waaye soo xam ne dafa ànd ak ak baayam mu gis ne waaye si moo jiitu baay bi topp ci ginnaawam Abu Hurayrata bëgg koo jàngal teggin daal di ñëw ba ci moom ne ko su ëllëgee soo àndeek sa baay bul ko jiitooti bul dox ci kanamam na jiitu nga topp ci ginnaawam walla boog nga nga féete ko ndeyjoor ngeen làng su ngeen di lekk itam lépp loo xam ne xam nga ne bëtam tege na ca fexeel ba bu ko ci sa loxo jiitu bu ngeen di lekk itam bul ko jëkk a jóg na nga bàyyi ba mu wóor na jóg euh, euh, bàyyi na nga door a bàyyi su ngeen bokkee kër gi bu ko jëkk nelaw ndax mën naa am lu ko dab lu tax mu soxla la te du la gis kon da ngaa war a bàyyi ba mu fattu ba ba noppi te booy wax ak moom nag ci jotaayam bu sa kàddu jóg mukk nag bokk yi ma wax ne lii warees na cee mën a déggee lu am solo fii ci Sénégal ndax dafa am ñaari mbir yoo xam ne sunuy mag dañuy jànkonteeg moom mooy mbirum lekk ak mbirum wéttal ñu baree bari ci sunuy mag sunu demee bay ba ba ma nekk mag ñiy togg ci waa kër gi ñi leen di sóoraale du bari waa kër gi ñoom dañuy togg liñ bëgg a lekk rek su ko defee nag la ñuy jox mag mi du ko amal njariñ te du ko mën a sax jëfandikoo lee léeg loolu moo tax mu doon bool boo xam ne ña bëgg njogonal moom la ñuy xaar ndax xam nañ ne mag mi moom du ca mën dara loolu bokk yi nañ ko bàyyi xel bàyyi xel waajur yi ci seen lekk xam ne bokk lañ doon lekk démb ak ki démb te ñun ñu toll ca mën naa am du loo xam ne mën nañ koo jëfandikooti beneen ba ca des mooy ni ni réew mi bindoo léegi bu njëkk ay kër yu mag la doon doon sët yeeg ñëpp nekk fi di wéttali mag ñi léegi nag ay appartement la ay dëkkuwaay la ku nekk ak sa bopp mag mi amatul ku ko wéttali sët bu koy wéttali kon nañ ko bàyyi xel ci loolu te loolu bokk na ci li nga xam ne mën naa andi ay feebar mën naa andi ay jafe-jafe kon lañ leen bàyyi xel ci di leen wéttali léeg-léeg suñu demee ba nga xam ne xam nañ ne wéetaay jàpp na leen bokk yi nañu moytu bokk ci ñi nga xam ne yonant bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy ñi nga xam ne dañuy dog seen waajur ñàkk leen a topp dafa am benn waay bu ñëwoon ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàmbat doomam ne ko moom day doom la joo xam ne daal defut ak man nen faalewuma toppatawuma moo ne moom day maa ko yoroon ba mu doon mënul dara fekk ma ma am kàttan am alal ma toppatoo ko ba mu toll nii tey am kàttan moom tey léegi am alal waaye duma defal dara faalewu ma daldi woy nag wax ay woy yu daw ra yaram ne moom mii maa ko yar dundal ko ba mu toll nii tey te ba mu cay toll day bu guddi masaan jot mu am lu muy lu koy metti ba mënta nelaw man duma nelaw day mel ni sax man li li ko dal man la dal damay fanaanee wëlbatiku te duma sama du ma gëmm bët waaye nag bi mu màggee ba mel nii mu mel li ma bëggoon lépp yàlla def ko ci moom gis nga lim ma faye su ma waxee mu gëdd ma su ma waxee mu toroxal ma toroxal ma lim may defal sax day day day mel ni day wane ne moom moo moom moo fàtte na la ma ko defaloon moom lim may defal rek lay xool defe na ne moom mi may defal wàccoon ak man defe na ne moom moo may jox xéewalam mu ne li ci gën a doy waar moom day su fekkoon ne fàttaliku na sax ne waa su ma doonatul waajuram bokk ba dara waru ko ci man xanaa ñoo dëkk bokk na ma jox ak yi dëkkandoo rek ba mu waxee lii nag yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jooy ne ji kàddu de ku mën a dégg doj sax bu ko déggoon dana jooy daal di wax waaye si ne ko xamal ne li nga am yow yow sa bopp ak li nga am lépp sa baay moo leen moom bokk yi topp ñaari waajur mooy tax a mucc àdduna ak alaxira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku am sa ñaari waajur ñu doon mag nga fexe ba am seen ngërëm garanté nga sa la mooy tax a gudd fan mooy tax a am wërsëg waaye nag ña ëpp ci ñi jànkoonteeg seeni waajur seeni doom jaar fële ñu jaar fee soo moytuwul nag ñoo ko leble woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lu waay leble loolu ngay fayu de kon nag su ngeen bëggee seeni njaboot bu ëllëgee ñu déggal leen dee leen déggal seeni waajur yéen itam yàlla na yàlla defal nu jàmm defal nu ak dégg ak topp yàlla jéggal suñu ñaari waajur te jéggal jullit ñëpp way dawlu yëpp yàlla na sunu boroon defal jéggal te yàlla jële fi mbas mi ci àdduna bi yëpp ñu ngi ñaanal sëriñ Abbas sunu borom dolli ko njéggal dolli ko leer waaye dolli ko it soxna Mariama Ñas mi fi bàyyi ko te doon liggéeyal alxuraan yal na yàlla taxaw leen te yàlla taxaw seen njaboot eh, sëriñ taxaa sunu borom jàppale ko dëgëral ko ba projet yi mu am yépp yàlla eggale ko ci kanamam te nu ànd ko ak moom waaye defal ko it képp koo xam ne yaa ngi yëngutu ci diine ba lislaam yëkkati ku dem ca kaw alhamdulilahi waxdahu walsalaatu walsalaamu ala man ballaqa alrisala wa adda alamaana wa nasaxa alumma wa tarakana ala almahajjati albayda ayoha al ixwa almuslimun min sifaati albirri maa yuxka min an aba hurayrata radiyallahu anhu ra'a rajulan yaxujju wa huwa yamsi amaama abiihi wa abuuhu yamsi xalfahu faltafata ilayhi abu hurayrata yuallimuhu al adab ma'a alwaalidayn wa yaquulu lahu laa tamsi amaama wamshi xalfahu aw an yamini wala takul maahu arqan maxaafata an tasbiqa yaduka ila ma sabaqat ilayhi aynu wala taqum qabla an yaquum wala tanam qabla an yanaam wala tarfac sawtaka bayna yaday ixwat alislaam inna annabiya sal allahu alayhi wa sallam adda uquqa alwalidayn min alsabci almubiqat yuqaalu inna rajulan jaa ila annabiyi yastaki ilayhi uquqa waladihi yaqulu ya rasul allah rabbaytuhu wa kaana daifan wa kuntu qawiyan wa kuntu xaniyan falamma sirtu daifan wa huwa qawiyun wa sirtu muxtaajan wa huwa xani baxila alaya bi maalihi wa xassara anni bi maarufi wa ansada shiran qaa'ilan gadawtuka mawluudan wa ultuka yaafian taullu bima udni ilayka wa tanhalu ida laylatun naabatka bi shakwi lam abid li shakwika illa saahiran atamalmalu ka anni ana almatruqu bi duni dunaka ka anni ana almatruqu dunaka billadi turiqta bihi duni wa ayniya tuhmilu falamma balagta alsinna walgaayata allati ilayha madama kuntu fiika uamilu jacalta jazaa'i minka jabhan wa xilzatan ka annaka anta almuncimu almutafadilu fa laytaka id lam tarca xaqa ubuwati facalta kama aljaaru almujaawiru yafcalu fa awlaytani xaqa aljiwaari walam takun alaya bi maalin duna maalika tabxalu fa bakaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaal ma min madarin wala xajar yasmacu hada illa bakaa summa qaala lil walad anta wa maaluka li abik fa birru lwalidayni ayyuha alixwa almuslimun sababu najaati fi dunya wal axira wa sababu siati alrisqi wa tuuli alumr wa muzamu ma yucaanihi alinsanu min xuquqi ibnihi innama huwa bi sababi uquqi alwalidayn kama tadiinu tudaan wa qad axraja alxaakimu fi lmustadrak min qawli annabiyi sal allahu alayhi wa sallam birru abaakum taburrukum abnaakum rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adab annaar allahuma ijmac ummatana ala alxayri walsadaad wa aslix diinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix dunyaana allati fiha macaashuna wa aslix axiratana allati fiha macaaduna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 wa nasaluka bi sitrika allazi la tusiluhu riyah wala taxriquhu rimah an tasturana fi daarayn wa an taxfadana fihima bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam